asalaamaaleykum wa Sénégal asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla buur bi subhaanahu wa taala ñu ngi julli di sëlmal ci sangu-sang yi muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñëpp jàmm waaye di ñaanalit suñu réew mi jam ndax ñëpp xam nañ ne jàmm ci la lépp xaj di masawu waajur yi rawatina yaay yi ndax xam ne doom dafa sax ci xol li nga xam ne wàcc fan yii ci suñu réew bi ñuy ñaan yàlla yal na ko fi yàlla yemale yal na yàlla fay ay wi li borom bi naan kullama awqadu naara lil xarbi atfaaha allah yal na yàlla fay ay wi nga xam ne moo tàkk yàlla mën na ko yal nañu ko yàlla defal ci turam boobu nga xam ne mooy assalaam yal nañu yàlla defal jàmm ju sax dàkk ci Sénégal ci suñu réew bu tedd bii di Sénégal waaye tamit di wax rekk ñu moytu li nga xam ne mooy fitna ndax fitna baaxul li ñu naan rek ñax mu tooy dina la xaale bu bu wow ni ko suñu maam Abdul Aziz daan waxee ci waxu yàlla ju tedd jooju wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa wa anna allaha shadidul iqab sadaqa allah azim fitna baaxul yàlla bugul fitna bëggul it kuy yëngal fitna waaye ak lépp rek dañuy jàpp ne loolu min amali shaytaan ñi ngi ñaan yàlla nag yal na fi yàlla yemale yàlla sotti ci ndox mu sedd guy waaye ñuy masawu di jaale képp koo xam ne bakkanam rot na ci suñu doom yooyu nga xam ne ñoo ci wàcc ah ñi ngi ñaan yàlla yal na yàlla mottalee seen ndaw si jannatul firdaws si gën a kawe waaye nag di ñëwaat ci programme bi nga xam ne moom la ñu dëkkmaloon di conférence annuelle fii ci daara internat Umu Salama école franco arabe Umu Salama ñu jàppoon ko ci bis yi passé le 4 juin yàlla def ak xat-xat yi fi jotoon jaar ñu reporté ko nag indiwaat ko le 11 dimanche bii di ñëw buñ ci yàlla yóbboog jàmm le 11 juin incha allah nañu ko defee woon rek di ci woo ñëpp di ci woo mbokk jullit ji di ci woo xame yi di ci woo soppe yi di ci woo am di jàmm yi di ci woo képp koo xam ne rek soppe la xarit la ñu ngi koy woo ci bis boobu nga xam ne moom la ñu dëgmal pour sargalee ko alquran waaye sargalee ko tamit ndongo yi nga xam ne yàlla dogal na ñoo nekk ak ñun fii ci daara ji euh, yàlla def ñu mokkal ñu leen ci woo di leen ci xaar di ñaan yàlla yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam yàlla defal ñu jàmm yàlla sotti jàmm ci Sénégal sotti jàmm ci suñu réew defal ñëpp jàmm bi xurmatil quraanil karim di xaar ñëpp dimanche bii di ñëw incha allah 9 ba 18 ndax yendu la kon ñi ngi ci xaar ñëpp di ci woo ñëpp di ñaan yàlla yal nañu yàlla defal jàmm yal na yàlla sotti jàmm ci senegaal wasalaamaaleykum wa rahmatullah